on avance ensemble dans la magie de Baba et des sportifs l'actualité en compte les gars actualité nous faisons yéene waxtaanee qui dit euh, Cristiano Ronaldo nous nañ ko porté plainte hein, Neymar et papam euh, Salah mi annoncé game du côté Liverpool Pape Demba Diop également Alassane Diata, euh, la pépite de Villarreal Nous ñu nous faisons ko wasaare pendant ce temps a Caboret le joueur donc bu Manchester City ñu a di abalé, abale fi mu ne Benfica nous daal ñoo intéressé pour d'aller recruter le joueur ak euh, Burkinabé mi nga xamné gis ngeen ko keroog mook Sadio Mané seen xulo bi euh, donc ci match éliminatoire yi mais aussi Ruben Amorim mom d'Al gaay gis ngeen ko de moom na premier match am en Premier League mais lim ci am moo hein, c'était un peu amer pour euh, lui moo hein, donc fi ni ne nii daal bi xamné ne des na lu bari, bari, bari, bari moo mais aussi permettre na premier match en tout cas Rashford mi nga xamné dafa publié woon ne entraînement yi mi ngi soog moom dund entraînement yu nexé mi dougal né dem mais aussi Amad Diallo le joueur ivoirien mi nga enchaîner enchaîné match yi Dougal ak hier aussi il a été passeur décisif Ahmad Diallo un excellent joueur Boy Bini. donc les trois derniers matchs yi a joué Manchester c'est deux buts deux passes décisives donc actuellement il est il a de la confiance Nous koy voir mu continuer ci loolu di ko aussi parce que Dom Afrique nous comme je dis dans Afrique moom dañ koy supporter fu mu mais également nous sert Mazraoui démb moo que le joueur qui a effectué le plus de dribbles des petits matchs mais également qui a réussi le plus de duels hein. gagné plus de duels 11 duels a gagné des Mazraoui nekk excellent joueur, hein, gagne bien, hein, le joueur international marocain, nous sert Mazraoui. Pendant ce temps aussi, on en a actuellement, il est le meilleur joueur de Manchester United depuis le début de la saison, hein, le gardien camerounais, en forme, hein, demain il a fait encore des assez des arrêts monstrueux, hein, donc actuellement là, rien à dire, c'est l'un des meilleurs joueurs de Manchester United. Derby Binagay, Nikoy Liverpool avec Manchester City, 8 points d'écart entre les euh, deux, match 8 du Yom, le 1er décembre, Inch'Allah, lay am donc nekk euh, lii di heure sénégalaise nag euh, dina nekk quatorze heure sénégalaise lay doon 16 14 dina neex Mohamed Salah bi nga xamne sax mom annoncé ne daal nee fi ne ni jege jege dem mo gëna a sax ko toog Liverpool ndax nee ba légui ni kenn defalu ko proposition de contrat du côté de Liverpool donc mom dal dañ japp né dem moo gën a jege sax ko togom du côté de Liverpool Mohamed Salah moko xamlé xamle Pape Demba Diop boy bi war na équipe nationale du Sénégal un excellent milieu de terrain yéen seetaan ngeen ko avec les U20 et tout encore buteur blessure moko freiné won il est en forme il est de retour boy bi ni nañ ko xol ci kanam karam c'est un joueur à suivre une des valeurs sûres de cette équipe nationale du Sénégal il a un tir sur et que le ma doon matassan d'ortel Pape Matar mais aussi Alassane Diata, un excellent joueur milieu de terrain formé à Cœur Major signé 4 ans Villarreal Dembolinko qui ko convoqué première convocation liste professionnelle équipe Abi en l'absence de Pape il était sur le banc hier un joueur à suivre qui dit Alassane Diata Bayilen leen malheureusement je n'ai pas le contact de certains de ces de ces joueurs là d'une affaire ba leur entourage pour entrer en contact avec eux parce que jot nañu valoriser les pas simplement de faire interview il y a beaucoup de choses à faire pour ce joueur. Et je vous le dis encore, c'est un joueur à suivre, très talentueux, Alassane Diatta pendant ce temps Papa Neymar wax na gars yi Neymar de jugé fi nga donc Al Hilal et tout l'Éral nee jugé jógewu fa ndax day jouer coupe du monde des clubs 2025 comptable 2025 la mais aussi mom nee domam club bu mu dem club yeku bëgg donc soxlo ben club nan ay bëgg nak ak bëgg ko nee instant yi ñu am am nañ choix xool fu neex ñu dem fa mais aussi ki ngeen gis à droite mooy médecin bi nga xam moo porté plainte Cristiano Ronaldo daf ko yoré 48 000 euros ndax walum chirurgie botox moom médecin bi cardiologue la mais en même temps walum défar sa kanam ay yoyu ay dafa am ay affaire injection option ay ay garab xam jox mom neena Cristiano Ronaldo daf koy rel 48000 euros yo xam fay ko ko lool nak fekk na Cristiano Ronaldo 2021 2022 mi ngone ci Manchester United gis ngeen Cristiano Ronaldo xam ngeen dafa def chirurgie bon ñuko xamul mi ngi ya ah. donc il a un peu comme joueur yu bëri defar na kanamam defar ay bëñam et tout c'est normal mais aussi dafa am lo xamne aussi par rapport ak âge tout 2022 médecin bi dal loolu wax médecin bi donc ben médecin genre indien le genre yi dal d'origine moom dal nee 48000 euros loo Cristiano Ronaldo yore loolu nag jot na coow xam ngeen Ronaldo mom coow moom dañ koy tuddu bu né ci Ronaldo Messi mom lu ndaw gars fessel ko donc mi ngi nonu gars li mo moo nekkoon information ñu leen bëggoon jox ci Babar Show di wax ngeen abonné like partager commenter su baaxee ci yéen la bu ne suñu la gars yi jëf